leen nag jàmm mbokki internet bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen a jaajëfal te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen xibaar actu net comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey jii li gën a fës ci xibaar yi dañuy dellu si waat lekk ci arrestation wu Koukandé ku ne dégg na ni nag justice da ko teg loxo waaye d'après information yi ñu ci mujjee ama ni moom dong wetu ca benn yoon am na benn waaye bu ñuy woowee sant yàlla. ñoom ñaar la ñu daal di arrêté ndo sur les mêmes faits li ko waral nag nee nañu wàllum escroquerie la ci benn waay bu nekk ca diwaanu États-Unis d'Amérique moom daal dafa daal di yónnee somme bu toll ci 4 millions de francs CFA kii nii di Kounkandé sant yàlla nag 3 millions de francs CFA la daal di teg ci loxoom ngir rek ñu daal di koy defal multiplication de billets maanaam daal mbirum junni yi euh, Kounkandé doon woote ni boo ko joxee cent franc sax mu defal la ko ay junni yu rey waa joojee loolu la bëggoon ba tax mu daal di yónnee euh, somu sept millions euh, ci diggante ñaar ñoo ñee di woowee seen bopp ay mara ginnaaw ba leen ko joxee nag la gëj am seeni nouvelle ba suñu joonu yàlla tey jii ngir poursuivre leen en justice waa ji dafa daal def descente ci réewum Sénégal nag plainte euh, ngir que justice daal di def loxoom dugal loxoom ci mbir mi waaye tamit nag euh, ngir rek mu daal di leen di ñu daal di leen delloo seen xaalis somu 7 millions euh, sant yàlla moomee nag nekkul koo xamante ni siiw na lool waaye mi ngi doon liggéey mbir ma ci suuf kuukande ma ca gën a fës nag moom la turam daal di dem ci presse bi Euh, ci euh, rajo yi ak ci li nga xamante ni rek moom moo di site internet yi en garde à vue lañ nekkoon ba ci lëndi bi nga xamante ni euh, férié la waaye Kounkandé bu moytuwul lekk dina risqué goro ndax moom moo toogoon ci télévision yeeg rajo yi di wax ne day multiplier ay billets moom moo ko waxoon ouvertement donc tey a nekk na mbir ba nga xamante ni rek loolee mënatu ko seetal kanta nag jot na 4 millions yi am déet euh, justice dina ko daal di leeral ñu dellu si ci incha allah ñu daal di suñuy euh, xibaar rek ci ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang euh, Pape Alé Niang nag jamono ji ginnaaw ba mu delluwaatee ci kaso bi ba suñu joon yàlla tey jii gis nañ ni journaliste yu ci bare bari dañoo daal di croiser seeni loxo rek ci boobee sujet ndax nee nañu dañoo am métit ak déception Pape Alé Niang bañ ko xeexalee bañu daal di koy may liberté provisoire bu mu génnee au lieu que mu daal di woote ab confirence de presse wala rek mu daal di dem Euh, ci site internet wala plateau de télévision ngir waxtaane euh, sujet ba euh, dafa préféré dugg ci benn live activiste wax fa ay kàddu yoo xamante ni tey ji moom moo ko yóbbee rek ñu daal di koy yóbbuwaat ci kaso bi ñenn ñi nag gis nañu manque de respect total rek la daal di amal vis-à-vis wu journaliste yi doon tayle seen carrière ak seen avenir ndax moom ndaxte nag ab activiste nekko journaliste directam directam la donc waroon na jox cër journaliste yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wala sax jox leen information yi nga xamante ni moom la ñu euh, soxlaandi ba suñu joon yàlla tey jii gisaguñu ñu daal di ci yëy yàbbe est que taxaw nañu tembe euh, ngir daal di koy euh, jàppale wala maire boobee day daal di continuer ba ñu daal di wan Pape Alé Niang ginnaaw en tout cas daal li ko daloon ci première arrestation bi jamono ji moom moo ko ci dalaat ndax nee nañu état de santé am daal di nay critiquaat comme ni ko soxnaam alerté woon la fois passée daane état de santé borom këram ah, tollu na foo xamante ni mënatul toog ci kaso bi ah, te bis buñ ko libéré wul lépp lu ko dal lekk mi ngi duut maraamu tuuma ah, réew ma Sénégal ak ñi nga xamante ni ñoo di justice beeg nguur gi cette fois ci nag pap Alé Niang nee nañu état am na lool lool ba ñu daal di koy jël lekk yóbbu ko ci benn clinique évacuer ko foofee ngir que docteur mën koo saytu waakam nag jamono ji inquiété na wu lool ba tax na ñoo ngi xaarandi euh, journaliste yi rek ngir ñu daal di koy euh, jàppale waat encore une fois de euh, plus ndaxte nag l'erreur est humaine waaye ñu xaarandi tamit beneen Pape Alé Niang bu fekkente ni génnaan na ci li nga xamante ni moom la moo di situation bi mu toll. ñu daal di suñuy xibaar ci rappeurs yi nga xamante ni suñu njiital réew président Macky Sall daf leen a daal di recevoir ca ba ngir waxtaan ak ñoom ci seen wàllum liggéey di hip hop bi waaye tamit nag ci lépp loo xamante ni nakari na leen ci réewum Sénégal ba tax na koy kaas. Euh, ku ne xam na ne majeure partie wu rappeurs yi nag ànduñu ak suñu njiital réew président Macky Sall waaye ñoom ngir ñu daal di toog mën nañu c'est la première fois wala bu amee sax euh, bariwul suñu njiitam réew nag daal na koy euh, sabablu jox leen audience ñoom ñëpp ñu daal di ñëw toog ko ginnaaw bañ fa yegsee nag seen nañ fa ay rappeurs yu baree bari ñu fa mel ni xumaan ak ñeneen ak ñeneen am na sax ñoo xamante ni ñoom dañ ne duñ fa teg seen tànk ndax dañoo jàpp ni suñu njiital réew président Macky Sall def leen a xëcc rek ngir attirer leen jógee ñu ci bari ci ñoom daal dinañuy yëkkati seen kaddu euh, jëmale ko ci micro taskatu xibaar yi ci mel ni euh, Simon Simon nag moom nee na euh, demuñu seeti président rek ngir daal di koy dunguru nee na demuñu toog ak moom rek ngir wut ci moom lu ñu am wala lenn li nga xamante ne war nañ koo kaas mu daal mu nekk seeni droit li nga xamante ne war nañ koo ñaxtu mu concerné leen concerné askan bi yaa dinañ koy wax ca na mu waree sans tamit mettre nañu en garde képp Sall euh, ngir rek daal di euh, féete ak moom am déet Simon Koukalam ca daal di wax nee na dem toog ak moom waxtaan ak moom san ne veut pas dire que ne bu ñu amee lu ñuy kaas ëllëg duñ ko kaas lépp lu ñu war a kaas dinañ ko kaas lépp lu ñu war a wax dinañ ko wax bu fekkante ni euh, dafa jot comme niñ ko defee woon kii nii di King Biz nag moom nee na déception totale la ci daal di amee ndaxte jàpp na ni rappeur yi xiif dong moom moo leen yóbbu ca pale ba ñu ran dem toog jano ak président Macky Sall nee total total gis ci kanamu rappeur yu doon woote ni dañoo bëgg euh, réewum Sénégal am donc ko jàppale ba tax na la mu daal di wax euh, ci euh, compte Facebook moom di xiif baaxul xiif moom moo yóbbee tey jii rappeur yi ñu daal dem ran ci diwaanu Palais ba naan dañuy répondre ci benn audience su suñu tër réew président Macky a nit dof nag moom daanaka la même chose rek la daal di wax sans détour yëkkati na ay kàddoom te a ñenn ci rappeur yi nga xamante ni gis na Euh, Saro ñaar ndax euh, jàpp na ne tey ji euh, ñu ci bari ju ñoom waruñu woon a répondre ci boobee appel d'après li nga xamante ni noonu la ko waxee Mouta moo nee na yaa de Saro Niang ci groupe de rappeur bi nga xamante ni ñoom ñoo demoon seeti njiital réew président Macky Sall ba tax na daal jiwarloo jamono ji am na ci groupement wu rappeur yi ndax ñenn ñi nee nañu waaw ci appel bi ñeneen ñi daan ni déedéet ci appel bi am na ñoo xamante ni nag dañ leen a jugé rien que ngir présidence bi ñu fa def alors que am na ñoo xamante ni sax dañoo demoon ngir kaas seeni droit te seeni droit boole lañ ci ah, droit wu askan bi ah, yëpp. Ah, ca diwaanu boo maraîcher nag gis nañu kawteef bi nga xamante ni moom moo fa daal di am ah, ñu naan benn coxeur dafa daal di agressé benn policier ah, ba naroon a jël xottu butéel jëm ko ko d'après liñ ci amandi comme information yu ca daal di ruuse waaja nag mi ngi nekk nationalité somalien waaye tamit ab coxeur la ci bo maraîcher nee ñu daal dafa naan ba màndi rek tàkkaliko ak sagom ci la commencé doon agressé passager ya fa nekkoon na ca guddik samedi ga noonee rek la leen doon indil lu métte métte di leen ko tegal ñu ni déeta waaye naka mu daal di toj ab xotte butéel rek ni koy jam ba mbir mi dégénéré lañ daal di woo benn agent de police bu nekkoon a côté mu teew sur le lieux rek ngir daal di koy neutraliser waaye waaje dafa daal di jeté lépp loo xamante ni rek moom moo nekkoon ci xolam ak ci yaram moom ci police ba song na ko jox ko ay coup de point yoo xamante ni tar na lool ña fa nekkoon ñoom ñoo nekk seede yi yemul mu def benn acte boo xamante ni moom moo gën a ba pare di troubler en public dafa jël chemise ak pantalon wu takk der ba daal di koy xotti alors que dafa nekkoon ab agent bu nekk en service mu daal di koy xotti publiquement ñëpp di ko gis mu jëlaat tamit taison de bouteille boobee continuer doon ko agressé ba tax na nag bañ ko neutraler ba noppi justice daal dina koy yóbbu waaye na ko identifier ah, ci turu dikko dikko nag moom jamono ji moo ngi en garde à vue te moo ngi risqué gros donte sax dafa nekkoon en état d'ivresse ivresse waaye ivresse boo xamante ni daf ci naroon a faataale bakkanu ñu baree baree ñu daal di jógee foofee nag jàll rek ci Aliou Cissé miñ naan na dem am du dem ginnaaw ba ci lay jow waxee ba noppi ba ni équipe nationale bu Sénégal jamono ji fi mu agsi mën nañ cee sant yàlla sant ci si Cissé ndaxte nag liggéey na ci lu baree bari gis nañu beneen équipe nationale ci beneen niveau boo xamante ni gëjoon nañ koo gis ci ay jamonoy jamono amul coach boo xamante ni jaaru fi mais tey jii li ñu indil kan bi ba ñu a toog ma également di tuur suñuy rangoon nañ ko sante Aliou Cissé ah, ginnaaw ba Laye Diaw waxee ba noppi nag maître Augustin Senghor moom moo ci daal di yëkkati ay kàddoom ah, te li mu wax say formel nee na ah, Sénégal équipe nationale bi ak Aliou Cissé dañoo daal di am rek lenn loo xamante ni ñu ngi koy waajal mu nekk projet bu rëy rëy te incha allah rabi nañ jàpp ni CAN 2024 bi war am ci euh, diwaanu euh, Côte d'Ivoire duñ ci ànd ak beneen coach bu dul Aliou Cissé donc départ moom nekk na benn débat bu stérile bu ñu daal di tege de côté Aliou Cissé demul bougé wul centimètre te incha allah CAN 2024 bi euh, ci loxoom lañ ko teg amaat ci moom yaakaar ngir ñu daal di koy gañewaat bu neexee yàlla d'après li maître Augustin Senghor daal di wax ba tax na nag mbokk yi ku nuyoo ku nekk ni nga tàggoo li lañ leen indiloon ci seen xibaar ak tunet jaajëfal leen te jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf